salaamaaleykum daleen ak jàmm ci Xarala Academy mbokk seen Xarala Academy tey suñu tutoriel dañoo ñëwaat si mbir mu am solo mu nekk naka la ñuy utiliser template jàngo voilà parce que système bu nekk c'est-à-dire euh, système bu nekk euh, framework bu nekk dafa am sa système de templating voilà voilà léegi nag euh, bon comme Node.js yaa am na Pug am na Jinja am na tamit yeneen système de templating mais Django tamit am na système de templating boo xamante ni euh, pour moom la c' est spécifique ak moom voilà boo presque dafa nuru ak Jinja voilà léegi moom moo nekk ni mun la bu nekkee dama nekk benn framework comme fii nii bon dina am solo trop ma am nu may généré ay page HTML dynamiquement voilà parce que loolu mooy idée bi c' est à dire naka la ñuy def ba généré ay page HTML dynamiquement premièrement moo wax la fi ngay enregistré template bi comme ni mu nekk nii voilà. léegi mën ngeen ñëw si document bi ngeen lire d'avance ci Django euh, seen template nu muy fonctionner ok léegi ñun suñ base bi lañ bëgg defal benn template ok ok léegi bon pour ñu defal ko benn template d'abord dama lay wan ay euh, bon attends ma def fi ml auto pour voir parce que bon ça c'est c'est boring ok c'est bon pour indiquer si côté gauche bi léegi léegi dama lay wan ay euh, ay euh, mbir yu am am solo ci côté développement voilà ay concepts yo xamanteni c'est tellement important en développement. imagine tay ñu am page yu bari comme am nañ page index normalement war nañ am page bo xamanteni ci moy nek à propos léegi damay créer waat ben dossier ba paré page tudé ko bon about la koy tudé about point html léegi pour ñëw si about bi da nga soxla benn view voilà à chaque fois nga soxla benn page da nga soxla soxla benn view boo xamante ni moo la yóbbu foofu léegi bii tamit index bi après dañ koy déplacer moom tamit foofu ci page bi quoi si dossier page bi donc damay créer beneen kii beneen euh, view léegi bon damay def def par exemple about request parce que argument bi toujours request lay nekk léegi nga def return rendex fii nga jox template bi pages about point html voilà je pense que render euh, ok bon request d'abord about point html ok léegi about moo nekk nii léegi boo créer euh, view view ba pare da ngay dem si url si nga créer ko donc damay def nii ma def about legi fii nii day wàcc ñëwaat fii def path da def nii def about hmm, bon clavier moom c'est tellement compliqué à coder avec bon peut-être ma terminer ak sama ubuntu bi après parce que bon Windows bi moom clavier bi sonal na ma trop trop trop ok c'est bon léegi about moo nekk nii léegi tey bu ñu ñëwoon fii ci site bi ñu dem par exemple Eh, ñu dem fii ñu dem about voilà indi nañu benn page vide léegi eh, bon à ah, index bi tamit dama koy indi ci fi about bi nekk maanaam si biir dossier page bi laa koy yóbbu léegi imaginons fii nii hmm, bon damay def benn container bootstrap par exemple div point container h1 def ben h1 def bon accueil bi mooy une page d'accueil par exemple bu ñëwee fi. Euh, def ni. Une page d'accueil moo nekk les bonnes bu about page ñëw copier waat ko changer ok donc ñu demandons about hall. about euh, what what the uh, gis nga about lan ngeen seetlu fii mooy répété nañ code yu bëri par exemple xoolal fii nii script bi dañ ko dañ ko def fii defaat ko fii code bi tamit dañ ko def fii defaat ko fii imagine suba ñu am beneen page bu ñu def fii page service dañoo nu sommes obligés ñu jëlaat lii defaat ko foofu imagine tey suñ boss boss bi mu ñëw ni ñu léegi bon euh, bëggatuma H1 bi h bi na ngeen ko changer def ko H2 léegi ñun dañuy demaat ci fichier par fichier di ko modifier léegi nag euh, amat euh, intérêt framework gi mooy mën nga am benn template de base voilà léegi man moom lay créer fii base point html par exemple bi mooy suñu template de base si ñuy def code boo xam ne dañ koy répéter rek fii lañ koy def léegi damay couper lépp lu nekk si page about bi yëpp dama koy couper tak euh, ñëw ci base bi def ko si ñëw index tamit bon li moom lépp laay dindi léegi ma wan leen exemple léegi benn page du am contenu comme ni ko gis benn contenu ñëwul ok c'est normal c'est parfait ok léegi pour ñu mën a utiliser contenu bi nekk fii nii fële naka la def par exemple dañuy ñëw fii nii am na si Django lu ñu wax ay bloc voilà léegi bloc yi nii lañ koy bindee voilà bloc day permettre par exemple élément yi nekk fii nga mën ko utiliser fële bloc léegi bloc bloc ngay bind par def nom bloc bi bon mën naa ko tuddee contenu par exemple parce que fii contenu bi moo si nekk léegi bloc boo tijjee tamit da nga koy tëjaat voilà da ngay def nii nga def n bloc voilà ubbi naa ko tëj naa ko léegi pour utiliser page bi dañuy def ce qu'on appelle extend voilà bon dañuy def extend pour mu jox ñu page bale yëpp lépp lañ soxla base point html voilà comme ni nga gisee nii léegi buñ ñu xoolee fii euh, bon xam nga def fii benn contenu boo xamante ni h2 par exemple base voilà pour mën leen benn exemple bu ndaw rek base comme about pare moom ñëwagul mais buñ ñu demee ci euh, comment on appelle si accueil gis nga base ngay gis fii nii gisagoo accueil bi voilà léegi pour nga mën a gis accueil contenu accueil il faut nga appeler bloc bi tamit léegi dañuy woo blog bi fii bloc bi nek fële quoi bloc contenu je pense non la ko ni def hmm, n bloc h2 ma def index léegi ñu xol ndax ñëw na wala ñëwul léegi bo défé ni voilà normalement index ñëw na voilà léegi index bi ñëw na euh, nu mu demee sax léegi li tamit mom la ñëwaat défaat ci about voilà première chose mooy nga def extend bon mën naa ko bind parce que <laughs> dama am benn dama benn outil bu may bu may indil affaire yi moo tax bon mën naa bind yëpp souvent aussi booy coder c' est important nga nga gagné nga xool yan uti ñoo lay permettre nga mën a coder rapidement léegi bloc content ngay def léegi boo defee ni pare euh, nga fermer nga tëj bloc bi quoi sinon après mën nga am ay erreur léegi nga tëj bloc bi da def par exemple h2 about ok léegi ñu xool ndax about ça marche wala marchul si ça marche pas ni ñu def ba ba marche. ok comme ni nga gisee euh, fii base le indil la moo tax parce que bloc content nom bloc bi correspondul ak nom bloc bu nekk fii loolu tamit c'est important nom bi nga def fi, moo nga war def fii nii te fii dañu juum def content bon parce que dama tàmm angle de trop contenu donc ok voilà changé na léegi mën na am ay erreur ci template par exemple n block buma buma bu faté k bi par exemple dina am ben erreur bu ñew xam mal leen ngeen xol voilà gis nga invalid block tag online 3 mun la si ligne 3 bi mom xamul ni ki bi xamu quoi léegi euh, naka ngay def ba comprendre genre erreur yi da ngay recherche si Google bi wala nga lire bu baax sa code parce que euh, euh, jàngoo tamit bokk na si lu li gën a neex mooy il est bien documenté erreur bu nekk dalay wax nak nga mooy def ba résoudre ko mun la did you forget to register or lose this tag ndax da nga fàtte enregistré wala nga nga chargé kii bii nii balise bi parce que xamul balise bi donc nga liiraat booy ah dama fàtte def kaa bi léegi boo defee kaa bi rek mu daal lay wan beneen bi tamit bi gën a am solo mooy fii nii war na la erreur fu mu nekk voilà wan nag en rouge gis nga voilà. je pense comprendre ngeen Django template bu parce que waxon na len euh, les créer nañ base amna na tamit benn aspect bu am am solo moy aspect par exemple séparer bar navigation bi parce que gis ngeen ñu bari dañ koy séparer def ko ci beneen fichier légui loolu tamit mën na len ko wan légui da ngay créer fi benen dossier bon comme convention la rek kum neex nga def ko partiel laa koy tuddee def bar navigation bi quoi par exemple fii laay def edex bama def edex point HTML bon vidéo de dina romb ay dix minutes tout rek mais du bari parce que bon c'est c'est un peu important c'est important quand même donc l'ini nii la euh, c'est c'est difficile hein. ok bon ok Les dañuy couper les lépp lay couper ok euh, sama appétit couper lii loolu ah, waaye dañuy fa ok Les barre navigation bi dem léegi pour indi ko comme jàngeen ngeen extend mais am na beneen bu ngeen jàngul mooy include waaw include bon PHP ñoom toujours include lañ include nii lañ koy bindee léegi boo include nga dem nga ni ko demal si partials partials nga jox ma nga jox ma lan navbar point html wala edax nga jox ma edax point html je pense que nii la léegi nga enregistré nga xool ndax baax na wala baaxul voilà gis nga baax na léegi séparé nañ barre navigation bi li lépp day diminuer complexité suñu code voilà code moom warul complexe lu mu gën a simple gën a baax merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel